ba yéena nga ca nataalu professeur Babacar Gaye mi jiite woon ndëpp gi di constitution bu Sénégal ci xët bu njëkk bés bi moom constitutionnaliste bi daal nee na loi d'amnistie bu président Macky Sall sa moon ci réewum Sénégal ci weeru mars gi ñu génn daal daa violé dëgg constitution bu Sénégal waaye déet waaye moom professeur yamu ca ndax nee na cour bi ñu nar a samp ci réew mi mu nar a wutu kon conseil constitutionnel mën na nii la nee na lépp doole président ci réewum Sénégal gi lee yéeglekaay groupe média bi ne Pape Alé Niang njiital RTS ma ngay teg pression dëgg procureur ngir mu baral jéego yi ginnaaw rapport OFNAC gi ñu teg ci kaw table gi ndax moom bëgg-bëggam daal nee na képp ku loxoom tàgg ci coow li nga xam ne moo amee ci réew mi nga guux alalu askan wi na ko gokke ci kanam auto attaquant ji Sénégal waaye loolu mooy dëgg waaye foo soble président daal ma bi lée jub jubal ak jubanti gi mu woote ci ma nga ca ma la ko wax te sàkku chef de bi nga xam ne lépp noppi na le soleil ne moom njiitu réew mi jomaay fay ma ngay samp fondation yu dëgg ke laa wax ne jëm ci logement bi waaye tamit gën a dooleel SICAP ak SNHLM ngir ñu gën a mën a wëyal seen liggéey ci réew mi te sàkku na ci premier ministre Sonko ngir mu amal conseil interministériel ngir waxtaanee logement di dëkkuwaay daal ci Sénégal lii ko jëne ginnaaw lu ëpp téeméeri fan yi mu def ci boobu réew mi Sénégal moom nga jublu dëgg ci liggéey bi libération ne état bu Sénégal kay ma yi ndax bëgg-bëggam gépp kay mooy mi fay taxi ñu dépee contribution édition spéciale jëm ci mine yeeg carrières yi Walf Quotidien ne nappkat yaa ngi rayante dëgg la nii ak BP ak Cosmos ginnaaw exploitation pétrole bu Sénégal ay waay li tamit mbaa jàmm la laas ne Jomaay ak Sonko kay ñu ngay séddale tàngali ginnaaw gaa yi leen jàppal tànk nag ngir projet bi daal mën a yegg si mu yegg si tey jile tur bi ne juróom-ñetti fukki nit ak benn kay la ñu samp ci poste yu yees ginnaaw conseil des ministres bi ñu amal niki démb les économies docteur Cheikh Bamba Diagne Ngouda Mboup Ousmane Diagne Mamadou Goudiaby ñoom ñëpp taxal nañ leen démb ay nombal tànk bés wi la Sène nag léegi moo nekk njiital DGE direction générale des élections wudu fa candeela fàll Mame Ngor Ngom nekk njiital Big Gouv le temps moo système patriote bi kay ma ngay sampi jéegoom benn par benn vox bi ne jomaay kay dagg na bopp yu bëri ni ki démb ci conseil des ministres bi ba noppi fal gaay xeex ak taxaw dëgg projet bi ba mu yegg si fi mu yegg si tey jii yëgle kaay bi jox kaddu ko Cheikh Omar Anne mu dikkaat bu baax a baax ci manœuvre yi bi dàq lu dul mu def gi ñu élection présidentielle waaye tamit jege gi mu def Amadou Ba premier bu Sénégal ba woon moom maire bu njum ne du yàgg dara dina génn APR ba noppi ma ngay liggéey dëgg laa ni ci cadre wu yees woo ne Amadou Ba la def seen de liste ci élection législative yi ba noppi ni bëgg-bëggam dëgg mooy Amadou Ba doon président bu Sénégal 2029 yoor yéene kaay ne scandale dëgg nag moo ci direction protection promotion économique sociale solidaire ndax lu ëpp fanweeri million sunu koppar koppar ngir jënd ay fourniture bureau te amul benn traçabilité ñu ne déet na waay ñu dépensé lu ëpp 15 millions suñu koppar ngir ay produit collation te amul benn traçabilité lu ëpp ñeent millions suñu koppar jëm ci matériel ak i produit entretien te amul benn document comptable lu jege juróomi millions suñu koppar la ñu dépensé lu jëm ci consommation informatique te amul benn pièce comptable boo xam ne mooy firndeel ni jumtukaay bi jote nañ ci ba noppi digg na ci màkkaan wi lii l'informateur de lu ëpp ñeenti téeméeri kër la ñu bandone ginnaaw mën na mi ëllëg dugg askanu Touba tribune yéene kaay de mbir mi kay yemu ci Touba ndax daanaka réew mi yëpp nekk ci jafe-jafe ginnaaw ndox mi wàcc ci réew mi ndax ci Kaffrine ay diwaan yu bëri yoo xam ne bokk na ci jàmm gën centre ba ci Kaffrine de ñoom ñëpp ñu ngi ci ndox mi ca Touba nag moo xam daaru xudus ndaamaatul daaru ba ci surat ak gédé lépp ndox mi da ko nangu waxtu wi le quotidien ñaari tout temps ñoo lab ca taw yu wàcc ci réew mi gp quotidien ginnaaw dem bek digg mel ni tuleeg mala ci réew mi jëwri gu transport ci Sénégal El Hadj Malick Ndiaye bëgg-bëggam dëgg daal mooy pagaay bi daal mën a jeex suuf soine pàccoo gi di suuf ci aéroport international Léopold Sédar Senghor ba tey daal jeexagul ginnaaw 800 hectares yi nga xam ne kon gars yi seddoo nañ ko des 400 te lépp mu ngi doore ci jamonoy Abdou Diouf ba ci Macky Sall jaaree ko ci Ablaye Wade l'observateur xëy def gëstu wu rëy ci ñàkkum yar mi ci réew mi ngir mu dàq daal foofu ñu jël ay daan yu saf sàpp teg ko ci kaw ñu a daq ci réew mi yëglekaay groupe Futurs Médias bi ne mbir mu doy waar moo xew ci Louga ak benn waay bu mandi ba tërëf jël paaka jam ko benn xaritam mu dee mais da ngay seet loolu rek